ëppal presse bi mais mi gisaguñ ko dafay naafile wala dafay day werd wala daa dem xadara wala fan la nekk. waaw instant ni moom mooy loolu. champion baa ngi ñëw. champion baa ngi ñëw rek. loolu rek baa ngi ñëw yan taaxalu leen tuuti rek champion bi ñëw wañu dem ëppal presse moom. nan ngeen waajee dimanche. dimanche moom moom incha allah moom ndam bu leer nañ nañ nañ nañ dóor mu daanu. yombal ngeen combat. dóor mu daanu waaw. kan moo dóor mu daan. mu moo koy dóor mu daan incha allah. dañ laa wan combat wala. non non du question wane ak yooyu ak yooyu. gëm la ñu ñun. waaw si te dugg na parcelle dóor ñoom la ay eh, ñoom si sos la ak yooyu waaye kii Modou xarañ loola. mooy le king. waaw c'est le bu xale bi. ah mais mais tamit kooku da nga koy bàyyi foofu muy wax rek xam nga rek kooku day nekk di wax rek yooyu ak yooyu waaye ñun moom waaye ñun moom rek ñëw dimanche ñu ñëw di dóor ko mu daanu mu waaw affaire yi jeex dimanche nee na mu dóor ko mu daanu affaire yi jeex kaay sama gars yi mais man damaa ñëw daaw ma de doo dawal kat saret comme dama gën a xanaa doo dawal kat saret comme an dama gën a jeekalu pour undu xanaa undu laa de mais nag am ngeen bis ci li ngeen am. ban bis. bis bu rëy ngeen am. bis bu rëy tarkindaa bi. kuy tarkindaa bi. Siteu. kuy Siteu. borom januwaar. kuy borom januwaar. borom jife. non man xaw ma kooku de. nga ko xam nga ki nga kii moom ki nga faral xamal. non xaw ma kooku man sama mbër laa xam de. mais ana mbër mi moom dafay day day naafile wala day werd wala fan la nekk. non mbër mi mi ngi fi instant day door a añ ñu. door a añ xanaa day njogani ko waaw day njogani ko ni. man Modou war a gis dimanche. ban Modou beneen Modou bu bees rek bu bokk la waxante ni contre Boy Niang la Modou chaque lamb Modou bu bees lay doon gars yi loolu lañ mënul xam nag meeru Pikine. Ah, mooy meeru Pikine ah. mooy dëgg yàlla vraiment. gars yi nangu nañ ko de. mais daje wala nag jàmm di daje. jàmm gën la ñuy dajale. mais yow mais maanaam meeru Pikine mooy bëreeg jàmm gën. mais morom daal moom daa. amul benn jaloore bu mu fi def. billaay def na jaloore. parce que ku dem bay ku le roi des arènes def nga boo deful dara doo bëreeg roi des arènes. non maanaam Modou da ko bëgg a teral. da ko a Modou da a defal teranga. non yow waxu waxu ko far. non non du question la waxu ko far. yow Modou Siteu dugg parcelle daan fi Papa daan fi sax ngeen def fi dara. bëgg a yow Siteu dara yow fi daan Papa Sow barki alxuraan non mu la booy mu daan ñoo gën a ës ñooñu fuuf booy ñaa mu gën a ës lamb ak ama te bu dee mu la jàppee benn jooy leen jooy presque war na alxuraan karim non yow mais yow yow mu la ni daan te nee nañ juboon ñooñu bu boobu bi la de bu dëgër bi. xoolal te loo xamul dimanche. si te mos na nekk nag dimanche damay ba suur. añ ba suur. voilà sol sama blouson naa ko jël sama taxi dem stade. combat yi ñu mos a am yëpp bii lañ si gën a fonk. barke Serigne Saliou. loolu da ngeen a tiit wala lu ñuy tiit si Siteu xam na ne ñun du ñu moroomam dinañ ko dóor dinañ ko daan barke Serigne Saliou bu ñu paree nag taf ko suñu dënn bi na suñu gora la na ànd ak yar nag te am del am teey li mu wax. li mu wax boo bis baa na dëggal boppam dinañ ko ko daan. waxoo waxi supporter. barke Serigne Sall dañ koy Siteu nga amoo Fadel Siteu nga. a xool kii bi doo doo gis jël bi yow day gaaw barke Serigne Saliou. Ah. baax na dina leer. la 24 yéen i jommi barki Serigne Saliou Mbacke. moo di jommal. xoola lu garaaw ngeen gis. lan la. waa waa waa jaama gën. na ñëw yaru ñëw si fair play ñu daan leen ñu ñibbi si jàmm mais leneen lu ñu si làmb ji ñoo leen ko ëppale. incha allahu rabi la 24 la ñuy xam lépp dëgg barki Serigne Saliou Mbacke. ana mbër sa yaram bëri mooy ñëw yow tous yow barke alxuraanu karim dimanche ban Modou la ñuy gis dimanche dimanche Modou Lo bi ñuy gis mooy Modou Lo bi daanoon gaa yëpp boobu la ñuy gis Modou Lo bi doon xeex di bëre Modou Lo bu garaaw bi Seydou Kaay Seydou Kaay ngi wax waaye li ma jaaxal gisaguma ba tey Kaay benn jooy la benn jooy la kan moo koy jooy Siteu moo koy jooy Siteu moo koy jooy moo doo koy dóor mu jooy ko da ngeen a jege Modou Lo rek ah mais ana mbër mi man mbër mi. mbër mi ngi ñëw mais fan la ne waaw gëstu naa bëgg a gëstu gëstu naa gisoo ko. <laughs> mu instant mu ngi si géttam mu ngi ci biir gétt gi. waaw mooy loolu waaw déggoo ma de. ku la dul bul ko soo ko lu ko yaa ko. ku la dul bul ko soo ko lu ca yaa ko. wax laa la wax. gis nga nit bu lëloo. anakim boo xam mënoo koo suxlu na laqatu bu ko neex na ñoo ñu jàpp ko daan ko na fecc fecc bi wax wax bi ñu duma duma bi daan daan bi. est-ce que doonu lay yombee ba ngay wax ay waxam de ah kaay yi ba tey muy dëkk bi leen dàmmal tey fii ci nga xam ne moom mooy kër kër maa ngi taxaw di xaar Modou Lo Modou Lo nag dimanche macha allah ban Modou la ñu gis bu leen a yéem bu gën a moom ak bu gën bu gën a garaaw moom ngeen bu dal arbitre bi la mu daw si ka daan te ba gën a gis ñoo ko na de ñoo ko gën a waaj su da combat royal lay bëre Modou pare na bu yàgg combat booy fal ngeen ko moom day pare at booy doom mais mbënd fu mu ne kon mi ngi ñëw que dina doon jëppal ba léegi dugg. dinañ ko gis léegi léegi nii. baax na ci kanam lay def. yow mi nekkoon ak moom di préparé am nañu wax ne dafa yokk ci wàllum poids par rapport ak ñaari combat yi mu génn lu waral loolu. waaw man gisuma loolu nag quoi su ma waxoon nit ñi man dama ci balaa mel dama ci wax. te gis naa daal ni mu tolloon. toll na noonu lépp a ngi mën quoi incha allah kala le 24 yàgg du yéex ci biir géew bi bu fekkee poids bi ngay wax am na ci. non amul poids moo doon ëpp poids nii foofu ko bàyyi paase. par rapport ak adversaire am kene ni waxe waxee ci kër bu mujj bi ne ko duma la may dara négocié wu ma boo tegee sax solo dama kay dag jël li nga jël yëpp wax bo ko ci taw wax mu melni ni agressif dafa am lu wa loolu waxu mbër la rek xamu mom ne ko ak bëre ci géew bokkul su la neexam bo sian bi mo wax lu neex na ñaari phase yo xam ñaari bokku waaw bokku lan mo lan moo ko wutale wa ki mu bëreel mbeur kamel la jaar na fu mu jaarul ba naa ñu bëreelu. Hmm. te nag mbër la ma na rek waa des arènes. daanaka da maa la mën foofu. waaw maa la man foofu gi mu ko gi ko Siteu wax nag. kan moo wax loolu. Siteu non loolu day defal gars yi rek. mënut Modou foofu. non day ah. Ah. Ah. bu demee ci combat boo xam ne dafa yàgg. léegi bu ñu demee ci combat bu yàgg. waaw mais Modou bëri na combat a waaw. mais mais a il faut que mu nangu tam ni Modou jël na maat ci combat ndax maat am na doole la wala mais Modou Modou combat ak ak ak la gënoon a laissé par rapport ak bii ndax doole ju fees dell la wala la la mais am na nga waaw xam nga ku ne sa gis-gis kenn du bañal doomu aadama gis gisam mais man sama gis-gis man góor a soog gis nga ni Modou dafa jël poids man gisuma loolu gisuma loolu ne la 24 heures dimanche incha allah bu fuddee ko da nga xam ne ba jël poids am jël poids werante ngay jël ko wala léegi sa boo gisee mu tuus wala nga gis ko mu nga xam jël poids am jël poids man jël poids si man waaw léegi bu ñu xeexee ñoom ñaar parce que am na ñuy waxoo xeex bi ak bës bi si ta yore des fois bu dóoree mbër mbër ma yomb naa bi jafe-jafe naa wax ji moom gars yi si ginnaaw comme li may wax tout le temps Babacar rek li may wax sama bopp laay wax yëpp si ginnaaw boo leen toppee sa làmb ngay yàq ay diw dafa am góos ak dafa am droit yooyu yëpp amu ci làmb nit li nga liggéey rek nga mën a utiliser mënoo utiliser li nga ci liggéey Siteu nag mbër la kenn weram bi du mbër Modou Lo mbër la mais ay diw dafa yor góosu dafa yor droit loolu ay waxu naxa saxa nag la rek hmm? lamb ji waaw affaire mbër la bëre la ak xeex ñaar yëpp la ànda mën nga ñëw bëre mu jeex man nga ñëw xeex mu të bëre moom kenn xamul fu nekk kenn xamul fu mu nekk waaw mais par rapport ak Gora Sock gis nañ la gis si géew say combat li ko fi waxaale bëri na mais ba tey mënta taxaw lan moo xew Gora moo bëggut a bëre wala Gora adversaire yoo ko ragal wala Gora moo lan moo xew daal non dama dul dama dul woon jubóo rek mais saa bi dafa mel ne xaw naa jubóo. yàlla yàlla may tàlle waaw. ci kan non loolu nañ bàyyi rek fii guddi incha allah rabbi. Ah. loolu kon daanaka mën na. loolu dañ ko mat xanaa fii guddi nga wax de. waaw incha allah. sa combat dina taxaw fii guddi. waaw incha allah taxaw na sax xanaa kay day am lu ñuy xaar. taxaw na ban promoteur la. Aziz Ndiaye. man adversaire waaw maanaam Albourakh. waaw man. ok adversaire bi kan Serigne Ndiaye la wala. non xaw ma kan daal man naa bàyyi noonu rek man man Serigne Ndiaye moo ëppoon coow nag donc combat yëpp daal ñu ngi man moom maa ngi fi di bëre ak mbër yëpp sama morom ak laay bëri man daal su may bëre donc doo bëre koo xam ne ni a ñoom ñaar cinquante cinquante ngay dégg ñu dee bëre maa xale ngay bëreel daal waaw man daal maa ngi xaar nii rek Babacar guddi guddi kay jot na guddi jot na waaw loolu la ñu